أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu beneen yoon ginnaaw ba ñu defee bunt bu njëkk bi nga xamante ne huit abyaat la ñu def ñaareelu bunt bi nga xamante ne fukk ak benn abyaat la ñu def ñetteelu bunt bi nga xam ne fukk ak ñeenti ab ab abyaat la ñu def ñeenteelu bunt bi nga xam ne fukk ak juróom ñetti abyaat la ñu ngi fas yéene dugg ci juróom benneelu bunt bi nga xam juróom-ñaari abyaat la ci jabrul kasri ci chapitre bi ñuy wax jabrul kasri ci téere bi ñuy wax jaamiul jawaami addawaawin walahu aydan zaadahullahu faydan na yàlla yokk ko it faydu yàlla na yàlla di ko yokk ay bëbb bàyyi nee na te yaqantu ann al mustafa xayru qaabilin bi xatti maqaalin qadruhu min muxaawili wa zal abdu faanin laysa fihi baqiyatun fama huwa ila al mustafa lil munaaqili wa ma huwa illa ahmadu wa muhammadun وما هو إلا ما وراء الأقاويل فمن راش سهما نحوه فهو رائش إلى المصطفى المنصور في كل جاهل فإني رحمانية الله عند من يحب ونار لطريد المجادل وإني روح الحب سم سوائه ولا سم سوائه فطورا يحيي تارة عين قاتل صلاة وتسليم على من تزينت به الخلد للأنصار أسد المقاتل bàyyi mu ne wax ji mu ne te yàqantu te yàqantu wóor na ma péng leer na ma wóor na ma péng ne annal Moustapha naka yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam moom mooy tudd Moustapha moom mi nga xam moom lañ tàll ci aalamul arwaax balaa muy ñëw ci asbaax di fi tudd Muxtaar Moustapha moomu wóor na ma ne xayru qaabilin duwul kuy nangu bi xatti maqaalin ci sippi ab wax sippi si sippi ay wax bi maanaa ci gottib wax ci gottib ay wax qadruhu yoo xam ne dayoom yëkkatiku na am na valeur am na poids min muxaawili ci ki nga xamante ne kat day jéemantu di wéy bi maanaa mu ngi bàyyee ko ci xaawala essayer verbe essayer bi maanaa bàyyi li mu bëgg a wax fii mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jaam bii nga xamante ne mooy Ibrahima Niass di fexe di jéem di jéemantu di jàngantu bokk ay wéy du ci wàññi valeur am benn yoon moom yonent bi salaa salaam du wàññi valeur bi dina ko ko nangul ci lu amul benn werante kon daal da ngay gis ne wax ji daal valeur bi nga xamante ne wala boog dayo bi nga xamante ne wax ji am na ko donte wàññeeku na sax donte sax matalewul ni mu war a matalee donte daal nam ko ko bëggoon joxe joxewu ko noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du doon kuy delloo mukk ay waxam donte sax day jàngantu wala muy jéemantu woy ah lii nag bàyyi mooy wàccee fii boppam wa nahnu incha allah sanu xaawil an ufassira madaiha cheikh ñu nit tamit dañuy jéem rek kon boobaa firi jéem a firi comme moom neen day jéem a wéy ñu nit dañuy jéem a firi ndax dëgg-dëgg mënuñu ko duñ ko mën bàyyi mu ne wazal abdu faanin laysa fihi baqiyatun fama huwa ila al mustafa lil munaqili wazal abdu bile jaam faanin aji jeex la laysa fii baqiyatun te desul dara desewul dara amul dara lu ko lu des ci moom ba teree koo jeex fama huwa jaam bi nekkul lu mooy ilal Mustapha lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mustapha lil munaaxili ci tuxal ci ñeel aji tuxal bi maanaa ki nga képp ka nga am dégg nga wax ci bëgg koo tuxal na nga xam ne ne jaam bii di Ibrahima Ñas ah nekku fi de jaam bi daal li ne ci ginnaawam daal mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga xool di nga ko xool foog ne mu ngi fi waaye dëgg-dëgg moom nekku fi wax na ko ci dawaayu ni siti ci beneen bayt bu am solo mu ne di nga mën a jàkk samay bët foog ne maa ngi fi fekk nekkuma fi mu ne wa ma huwa illa ahmadu wa muhammadun wa ma huwa illa ma wara il aqaawili mu ne te déet moom jàmm bi muy nekk illa ahmadu lu mooy ndare ahmad ba léegi ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wa muhammadun nekkul lu mooy muhammad ahmadu mooy turu yonent bi saa sam waa kaw ahmad lañ koy woowee muhammadun waa suuf ñoon muhammad lañ koy woowee wa ma huwa nekkul illa ma waraayi lu mooy li nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw aqaawiili wax yi bi maanaa nekkul lu mooy la nekk ca gannaawi wax yi wéyu wax yi waaw la nekk ci gannaaw gannaawa gannaawi wéyu wax yi wax yi bi maanaa waxi wéy wax yi ñi nga xamante ñooy wéy wax yi waxkat yi seen wax ak xeetu tagg bi ñu mën a indi yonent bi ne yonent bi yaa mel nii yaa mel ne le yonent bi romb na foofu di dem yonent bi romb na foofu kon nag nekkul lu may la nekk nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw yi wax wéy wax yi wala bokk akaawil yi ñi mën nañ wax ne moom mooy la nekk ca ginnaaw xel yi ndax la nekk ci ginnaaw wax yi mooy la nekk ci ginnaaw xel yi it ba dégg fa man raacha sahman naxwahu fa huwa raichun ila al mustafa al mansuuri fi kulli jahili fa man raacha képp koo xamante ne raacha na luggu na képp koo xamante ne bi maanaa yaa ngi yaa ngi jubal sax man fett waaye ban fett la fett boo xamante ne dañ koo dañ cee samp dunk dañ cee def dunk parce que baat baatu racha mu ngi bàyyee ko ci racha ri racha réchun réchun mooy dunk donc ginaar ay dunk picc ak yooyu képp koo xam naa daal lugg nga ab bantab fett fett boo xamante ne soo ko jub jubalee ci kaw fa nga koy bëgg a fett nga bëgg mu dal ci mu nga bëgg fett bi am direction arab yi seen jamono dañ ci daan boole dunk léegi nag moo tax mu ne képp ko am lugg na rek ab fett bant fett boo xamante ne ba nga koy jubal yaa ngi ko jubal ci naxwahu ci wàllam ci côtéem fa huwa raichun kooku kat moom mooy ki nga xamante ne lugg na ilal Mustapha jëmale ko ci Mustapha mi nga xamante ne al mansuuri moom la yàlla dimbali fii kulli jaaxilin ci képp ko am réerée na ko wala aji réerée ba koy xeex bi maanaa bàyyi mu ngi lay wax fii ne la soo jëlee sa bantu fett ba def ci saw saw dunk ba ne yow danga ko koy jubal ba xëcc ba foog ne soo bàyyee rek mu ñëw jam ko moom bàyyi ba foog ne soo ko bàyyee du ko du ko du ko du ko moy benn yoon ba foog ne bii baa moom jekku nga ko ah na nga xam ne kat loolu soo ko jubalee ci man kat yaa ngi koy jubal ci Moustapha yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga am al Mansuuri ndax fii di lay wax ne noonu yi ko doon xeex réeré woon ko ba koy xeex nañ ko ko doon jubalee seen ay fet ak seen i pexe ak seen ay yu bon dëgg-dëgg yàlla dimbali na ci yonent bi kon nag su dee yàlla dimbali na ko te man nekk ma fi man bàyyi kon kat yonent bi ngeen ko jubal te yonent bi yàlla ku yàlla di dimbali lay doon ci jamono ju ne loolu mooy bi maanaa jarul sonn pexe bi du sotti bàyyi ne fa inni ya rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wa naarun li toridil mujaadili fa inni ya naka man bàyyi rahmaniyatullahi man maa yërmande yàlla gi Allahu akbar inda man yuhibbu ci képp koo xamante ne nekk ngaa ji sopp képp ko am sopp nga bàyyi ah ne la leer na yërmande yàlla am jooju yërmande yàlla ji yàlla def na ko ci Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass di nga ci jëriñu te yàlla su la yërëmee dina lay xéwalee mu ne nag wanaarun te moom mooy safara safara si tar buy lakke li tari di mu jaadile ci ki nga xamante ne dàq nañ ko ci koo xamante ne bi maanaa soril nañ ko ki koo xamante ne almujaadili koo xamante ne aji dàgg sante la ak man bi maanaa mu ngi jógee ci torada yatrudu torada mooy lu dàq maa ngi fàttaliku mus nañ toog kër bàyyi maag benn doomu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Mahamadul Mahdi Ibrahim ñu ñëw rek indi ñu benn photo boo xamante ne ñu ngi ciy dessiné bàyyi ba pare ba ñuy desee dessiné bàyyi ñu ngi ci bind ci photo bi noonu yi daal ñoo ko defoon xam naa xaw ma waxaabit yi la xaw ma kan la daal dégg naa sax ñu naan waxaabit yi la ak yooyu ñu bind ci Abdoulaye al Matrudu ñu ne jaamap yàlla bi ñu dàq keroog sëriñ bee ngi mera mera mera mer be lu ne loo xalaatul lu ne rek meree na ko noonu ndax dafa mel ni soo laalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi moom soo ko laalee mu noppi waaye soo laalee yonent bi rek mu doon gaynde mu jóg waaye keroog sëriñ bi de ni mu jógee ci laa xam ne ne daal laal bàyyi wóorut ci laa daal di kuppati parti bi ci la wax naa kuppati parti bi mooy parti bi ñu bind al matrud Abdoulaye al matrud ñu daal di dagg loolu ci photo bi ndax photo bàyyi moom kenn ñemewu ko dagg loolu moom man dund naa ba gis ko kon nag noonu bàyyi moom xëy na ñañu jiitu xam nañ ci dara waaye man mii de dund naa ba gis noonu bàyyi li mu liggéey yàlla nañ ci yàlla musal bàyyi nag ne wa inni wa inniya rooxul xibbi summun siwaa'ihi fa tawran yu xayyi taaratan aynu qaatili fa inniya naka man bàyyi rooxul xibbi man maay rooxu ki nga xamante ne moom moo ma bëgg man maay rooxam man maa koy dundal naka roox nu mu mel ne nekkee ci yaram noonu laay nekkee ci moom di ko dundal man ki ma bëgg waaye nag man maay contraire ku ma ku ma ku ma ku ma ku ma bëgg mooy posonam moo tax mu ne summu siwa summu siwaa yi man maay tookepp wala posonap kudul kooku nga xamante ne moo ma bëgg waaw mu ne fa tawran baatu tawran ak taaratan daanaka benn maanaa la rek waaye ngir enrichir vocabulaire bi lañ koy indee mu ne fa tawran léegi-léegi yu xay yi dinaa dundal bi maanaa dinaa dundal ki ma bëgg ndax nee na mooy roxul xibbi waaye nag taaratan ba tey mu ne it yenn saa it léegi-léegi it wala it beneen yoon aynu xaatili man maay jëmmi aji rey bi man maay jëmm ji nga xamante ne man maay rey ki nga xamante ne moo ma bañ ndax bañ ma poson la man maay posonu ki ma bañ te poson moom day rey te loolu yàlla nañ si yàlla musal yaa rabbi mu ne mu ngi koy tëjee ak salaatu ak salaam mu ne salaatun salaatun xéewal wa taslimun ak mucc ala man tazayyanat yal na nekk ci ki nga xamante ne taaral na bii taara taaree na taarewoo na bii ci moom al xuldu aljana bu ñuy wax xuldu aljanay béel mooy aljana bu éternel lil ansaar yi ñeel ansaar yi ñi nga xamante ne usdil maqaatili ñoom ñooy dëgg-dëgg gayndey ray raykat yi gaynde yi nga xamante ne ñooy rey noon yi maqtal masdar la maqaatil moom mooy jamu maqtal kon nag yal nañu yàlla dimbali ñu bokk tout le temps rek ci ñi nga xamante ne ñoon ñooy dikkee bàyyi ci raxmaan yëm bi ci te musal ñu ci ñi nga xam ñooy dikkee bàyyi ci beneen bunt bi wa ma zalika ala llahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah